إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين noo ngi tax sunu borom subhaanahu wa taala noo ngi koy bàkk noo ngi koy kañ ci mboolem xeeti tur yu sell ak melokaan yu taw yi nga xam ni sunu borom moom moo ko jagoo ku weet la mu ci nguuram ku am kàttan la ci bépp mbir ku xam la mu kumpa li feeñ ak li dëpp ñoom ñoo bokk yem ca moom yaalamu sirra wa axfa noo ngi gërëm suñu borom bi mu defalaatee tawfiq ba nu dellu si waat borom keppaaru xam-xam di waxtaanee dund saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam ngeen ni comme ñu ngi koy baamoo bis bu nekk ca baamu gi ci gën a indi njariñ mooy inna fi xasasihim la ibra laaye ci day mbokk yi bind bi li muy am am am solo di jël aaya bi di ko tàmbalee ci dars bu nekk da koy doon solo ndax dañuy def dundu saxaaba yi noonu rek ngir bëgg a xam ndax dañ koy def rek ngir informé wu ndax dañ koy def rek ngir xam saxaaba yi ñoo ñan laa wasal la déedéet waaye dañ koy def ngir mën a xam nun fan lañu teg suñu tànk ndegem suñu borom moo nañu fa in amanu misli ma amantum bihi faqad ihtadaw suñu bëggee baax suñu bëggee yàlla gërëm suñu bëggee am aljanna suñu bëggee yàlla subhana taala defal la mu defaloon ñooña suñu bëggee mel ni ñoom suñu borom suñu bëggee suñu borom gërëm ci suñu biir ak dund balaa ñuy faara dañuy jéem a xam jàng toppat lañ bés sahabatul kiraam nan doon dundee nga xam ne mooy dund ko sell ga jamono jën ci dana jamono ji sell ja te teg wax yu di wàcc nekk rasul mariyan koy xeeb moo tax ndongo yooyu ndongo yéen sa salam maas gën doon dund moo gën ci maas bi yéen si yàlla sasala mu ne xayru naasi qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum ñi maas gi gën ci maas gi mooy maas gi ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maas gi ci topp mooy taabi'u yi maas gi ci topp mooy taabi'u taabi'in yi nga xam ni li ëpp ci ay may ay yiñ lay limal yi ay may xam-xam ci maas googu lan bokk maa xam ngeen ni bokk yi ginnaaw defaru bu mën a alloo ci alquran ak sunna nit ki ci bën ci koowut ci lu gën a gaaw te xam saxaabatul kiram lañ doon dundee li muy def ci xol xol ba mën a mën a mooy xol bu baax ba xol ba nga xamante ni fu ko njëkk fekk yokk ko xol bi nga xamante ni saa bu dee bay wàcc rek yii la koy pompé waat yéegalaat ko loolu laa nam ci xol ba la chaque ne lu mel nii di waxtaanee dundu saxaaba ya lu am solo la ndax doomu aadama man ko def nii tukaay noo ngi nekkoon ci kenn ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bind yeewees yëpp muy soxna Aïcha radiallahu anha tey noo ngi continué ci dundu ndaw soosu duruusun raaliya bunt bi borom téere bi tàmbalee ko ci ay bind ngi ni yoo xam ne yu cher la yu riche la yun mën a jàngee ci dund lay Aïcha radiallahu anha mu ni wa huwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yata'ahhaduha bit-tarbiyati war-ri'ayati wat-ta'lim fa kana yu'allimuha da'iman anna ar-rifqa war-rahmata sababu kulli sababun fi kulli khayr nekk na mbokk yi ne Aïcha dundam waxtaanee ko ci boppam dafa lu dafay lu am solo ci biir waxtaanee ci saxaaba yi ndax yëpp yëpp waxtaanee seen dund am na solo waaye ci biir am solo boobu dafa am miisa dafa am benn benn sette dafa am benn jagleel boo xam ne dund lay Aïcha da koo am ci mboolem jigéen ñi nga xam ne dam nañu waxtaanee seen dund lu ma namm ci loolu waxtaanee dundam ay duruus ak ay ibar ñoo ci mën a bàyyi bu dee ci wàllu ku góor gi na yonent bi doon jëflanteeg moom sallallahu alayhi wa sallam dañuy feeñ te loolu daf lay jàngal góor bu ñu may soxna nan la war a yore soxna walakum fi rasulillahi uswatun xasana fexe bi Aïcha demoon ko fexe ba moom ko xolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa dangaa jàpp ne yonente bi dafa jékki-jékki nii rek bëgg Aïcha noonu rek jagleel ko ay jagleel rek noonu rek par hasard noonu déedéet loolu de Aïcha ci boppam dafa def ay jëf li jëy ay liggéey yoo xam ne ba ko suñu borom fayee ca la boobee xolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom boobu nag maa ngi ci namm maanaam dem ba fees na dellu xolu yonente bi sallam ci cofeel ak bëggeel comme ñi nga xam ne noonu la ko borom kër di bëggee soxnaam ci dimbali ko ak di ko jàppale ñaari nag yi benn bu ci nekk borom kër bu ne nan lay redressé këram di ko yore bu coow tàkkee ci këram nu mu koy fayee loolu dafay feeñ ci dundu Aïcha waaye Aïcha nag dundam nag damay wax ni jigéen ji nga xam ni dafa bëgg a tëy ak koppi lay jël ci dundu Aïcha radiyallahu anha laa shakka ne su noppee foofee dafay nekk jigéen joo xam ne yàlla mën na koo defal tawfiq ci biir sëyam borom téere mu ni yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ni mu doon gérer këram te loolu góor bi la war cee bàyyi xel mooy daf doon nemmeeku Aïcha radiyallahu anha ci di ko tarbiya mbokk yi maa xam nga ndaw si bi ñu la fay lay lépp day fekk yaa ko man maa xam nga ni jigéen xelam góor mooy gën a gudd xelam jigéen maa xam nga ni jigéen soo dafa aajowoo ko ko orienté ku jubbanti loolu tax ñu jox la ko yaral nu la ko wax dañ ko doon yaram mottali lu yaram la chaque ki wax mottali lu yaram kooku am na ay mbir yu def moo tax lajaabu muy góor gi muy bàyyi xel soxna di ko fuglu di seet yi nga xam ne ay njuumte la ki erreur mu di ko ko jubbantee moo tax mooy yonent yàlla bokk na ci yi mu doon jubbantee Aïcha mooy ann rifqa wa rahma sababun fi kulli xayr gis nga nooy oyof am yërmande ah sabab la ci bépp yiw allahu akbar baat bii day ak a neexoon nu wax ko jigéen ñëpp ah ngir nit ki yëg nii lu ne rek maanaam force taxut a am dara force taxut a am dara nooy wàcc sa borom dal naa koy faral di wax soxna yi gis nga léeg-léeg jigéen dana laaj dara ba dëgëral du ko am di nga ñaan dara kenn du la may nga laaj ñu jànni la nga wax kenn du la baale fekk sababa mooy ñi ngay jëlee ñi ngay joxe gis nga jigéen bokk na ci li yonent yàlla bi doon jàngal Aïcha radiyallahu anha oyof ci ay kàddoom nooy ci ay kàddoom allahu akbar kon ñun nar a ñëwee ci dëgg bi saa bu Aïcha yëgee tooñ na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inni atubu ila allahi wa ila rasuli ah man kay maa ngi tuubal yàlla jëf su ma paree maa ngi lay tuubal yow tàng bi sallallahu alayhi wa sallam xool yi kat ma ahla ma arfaxaha borom kàddu yi ni mu nooyee ni mu lewetee ba yow boo meroon sax da ngay rus wallahi am na kàddu yoo xam ne loo mer mer mer mer mer buñ la ko rek nga metti lu tax da ngay rus ndax doo bëgg doo goree def gën laa goree moo tax Aïcha léeg-léeg Aïcha dafa ànd na tànkoo leen di wan ko di ko mbir mi du mbirum tànk mbirum mbirum sedd la ak dal gis nga jigéen dina gën a nooy gën laa dal gën laa bañ a ànd ak li ñu dee xida xida mooy tàngoor gis nga loolu wallahi day yàqal jigéen si du ko yëg day sànn day yàqal jigéen fekk mi ngi foroñe li muy liggéey lépp du yëgu ci dara tànn naqari dara ñàkk xam nooy waxee ñàkk yàq yi yëpp tey boo duggee ci biir kër yi moo ko fees deel ah kon Aïcha loolu yonent bi teeloon na ko dindi ci moom jël nañ ci Surayh ibn Haari mu ne benn bés Aïcha dafa war benn giléem mu dox dox giléem gi mel ni ku xaw a xoox xam ngeen xoox mel ni ku sonn Aïcha di di porte nganaan ngir na gaaw dem yonent bi téye ci nganaan bi ndànk saaxibul qalbi rahim ne ko Aïcha defal naa gis na porte taxul dara sotti allahu akbar mu ne ko Aïcha gis na porte taxul dara sotti mu ne ko alayka bi rëdd dégg nga def ndànk Aïcha li ngay gërëm faraxi ni lan la فإن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه Aïcha dafa ndax la yor wax la ndax ñu dal la gis na nooy ak tal ak nal nit moo ko dugal rek mu kulóor ko rafetal nit moo ko dugal bu natt woon na rafet sax dana rafet waaye gis nga mbir mënu ko rocc bu baaxoon sax commencé am gaa allahu akbar ndax jigéen ñi ñu ngi dégg leçon bu mel noonu nooy ci ay kaymaat kalimaat yoo xamante ni rooqa la te zaadu lil qulub jigéen ñi mënul loolu bokk na ci li gën a yàqal sa jigéen ñi seen biir néegi say loolu jigéen yoo xam ne xamul nu muy waxee xamul nu muy jëfee xamul dara waaye am na koo xam ne bu dee wax mi ngi tànn ay kalimaat yoo xamante ni ay aarat yoo xam ne rooqa latifa baat yu nooy nag baat yoo xam ne dafay nongi nongi comme lan bu amee retour waaw dina tax nit ki lu mu naroon ci safaan sax du ko defati dina tax nit ki lu mu nangu woon ci mbaax dana ko def foofu la jigéen ñi rawante allahu akbar ñoo ngi xam ay jigéen yoo xam ne ah lii may wax wallahi lii may wax askanul saxaaba yi kese ñoo ngi xam ay jigéen yoo xam lu gàtt gàtt gàtt ñoo ngi dund lu mel ni lu tax mooy ñeneen jege te war leen koo mën a teelal te muy dëgg ñoo leen ko teelal moo tax Aïcha loolu la jàngal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maam yonente bi loolu la jàngal Aïcha soxna ji ci Zubayr Urwa ibn Zubayr pour wane ne loolu tamit lu ñuy xas jàppante la Aïcha nee na benn bis ay yahud dañoo ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñekkee ñu ne assalaamu aleyk loolu mooy lan dañ koo lan dañ koo lan yéen ñi ñu ne ko assalaamu aleyk dañoo nuru ko ko nuyu fekk nuyu wuñ ko assalaamu mooy dee xam nga assalaamu aleyk ak assalaamu aleyka dañoo nuroo yow yi dañoo ñëw fekk yéen ñu ne assalaamu aleyk yàlla nga teewaay yéen si bi dégg na ko bu doon ñu ne ku ñu wax loolu nooy def bu la benn yahud di ko ne assalaamu aleyk yàlla nga tee bu doon ñu ne da ngay mel ne ko yéen yàlla nga dee ba nëpp ba tàbbi safa loolu ngay wax ñun lu mel noonu la Aïcha wax ah bi mu waxee loolu ah Aïcha radiyallahu anha ne wa alaykum assalaam wa laana yàlla ngeen dee ba nëb yéen yi rëbbam yàlla tàbbi ci seen kaw yéen yàlla bi ne ko mën la ñaa Aïcha déedéet déedéet du noonu def du noonu def allah yàlla nga dee ab yahud ab juif ni mu bonee ab juif nga xamante ni xaj ya bàyyi ko naka sax leen gën kilaabu ahli naar sax leen gën ah ñun yàlla si sax yàlla nga dee Aïcha ne yàlla na ngeen dee ba mu yàlla tàpp ci seen kaw ba ngeen nëpp yéen it tàbbi xalaat mu ne ko masalan déedéet Aïcha du noonu def du noonu def inna allaha yuhibbu rifqa fi l amri kulli yàlla dafa bëgg lu ne rek nga ànd ak dal mu ne ko ya rasulullah awalam tasma ma qaalu xanaa na nga dégg lu wax mu ne ko awalam tasma ma qultu lahu fekk yéen leen wa aleykum yéen leen wa aleykum ak yéen te ñun nag gars yi ak yéen fayub yàmbar la déedéet ak yéen du fay bi yàmbar de yéen bi moo ko fayee mu ne ak yéen ñun yéen bi yàlla nga ji te yàlla du nangu seen ñaan te yéen bi bu ne leen yàlla na ngeen ji ak yéen yàlla dina nangu ñaanu yéen bi sallallahu alayhi wa sallam kon kay wa aleykum lay na mu ne ko awalam tasma ma qaalu xanaa dégg li wax mu ne ko awalam tasma ma qultu lahu xanaa yow da ngaa déggul li ma leen toon mu ne ko ah alayka bi rëf yàlla dafa bëgg xooy nit ki na ànd ak dara dafa sukar libir libir mayu dara nit ki day ànd ak xel li muy def yëpp rek nekkul xelal bakkan yee en général boo seetloo nit ki li muy def bu ko ànd ak xëfër xëfër fële fële sax du am la bëgg muy góor muy jigéen moo tax noonu la yëf yàlla sallallahu alayhi wa sallam doon yeree Aïcha radiyallahu anha te teewlu doon wa insaaf bokk na ci yéen yàlla doon jàngale ci biir këram dundam ak Aïcha tamit fexe ba loo bëgg bëgg bëgg bëgg soxla fii yamale yamale yam yamale bëgg ba su ñu ko waree yar yar su ñu ko waree digal lu baax digal lu baax ñu war dañuy dégg yonent bi dafa bëggoon Aïcha dafa bëggoon Aïcha mel ni daf koo bëggoon bàyyi ko rek lu ko neex def Aïcha ne ci kër gi rek lu ko neex wax ngir mi demee wut noonu de déedéet yonent yàlla sallam kaana laa yujaabiru ahadan fi diinillah diine yàlla ci azza wa jal daaw ci mas laante kenn su fekkee nekkoo ci dëgg bala sax su fekkente ni da ngaa nekk ci gën a sopp comme Aïcha soo juumee daf lay jubbanti fi léegi nii Aïcha benn bi te lii may nit ñi ñëw na ci ay riwaayaat yu bëri boo demee ci um umma haaji kutubu sunan yi ñëw na ci ay riwaayaat yu bëri am na riwaaya boo xam ni yonent yàlla saa sallam Safiya daa romb Safiya soxnaam la Aïcha mu ne gis ngeen loolu mu ne nii xam nga loolu ñuy jëw loolu la ñuy def benn riwaaya bi noonu la am benn riwaaya mooy hasbuka min Safiya kasa jaay Safiya waay daan def nii mooy daa gàtt maa nga ko doon jiw daal laa bëgg a wax daa wax ab sikk safi yay dem mu ni comme ñuy jëw ni ñuy def am benn waay way dañuy nii di wane ne daa gàtt am na yeneen riwaaya waaye benn bu ci nekk ba mu amee loola yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ah laqad qulti kalimatan law mudijat fi maa'i al-bahri lamazagat allahu akbar mu ne ko Aïcha li nga wax garaaw na li nga wax rëy na gis nga li nga wax bu doon lu def rek boo def boo ko yàbbee ci géej gi mu xonqal géej gi yëpp ndax garaaw subhaana malika al-quddus mbokk yi xool nañ jëw ni mu garaawe ñun nag lu gën a rëy loolu la ñuy def xoolal ko booy jàpp li nga tolloo li nga luux xam nga loolu la géej mën a def bu xam te soo ko mën a sottee ci géej ba muy couleur géej yëpp xonqal ko def loolu rëy na mu ne ko baat bi nga wax day bu doon lu ne yàgg la nga sotti ko ci ndoxum géej gi dana xonqal ndoxum géej gi yëpp allahu akbar mbokk yi jiwlu garaaw ñu nag dañ koy moy te xoolal lii lu am solo parce que dañ ci war a yar jigéen ñi dëgg la góor ñi dañuy jëw jigéen ñi waaye jigéen ñi nag gën góor ñi ñu ëpp ci liggéey ba lañ dañ taluñ ko dañ nag góor lay jëw jigéen day jëw waaye xoolal nañ ron keppaar yi dajewukaay yi waxtaanukaay yi allahu akbar allahu akbar xam naa mbokk moo xam jàmbaar boo nga lay jëw ci fekkam rek ah déedéet man kenn du jëw sama xalaat ku mel ne roi bi am na ñuy nekkee noonu la meloon day sax lii la ñu war a ñàkkat ba xam yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa romb te ay saxaaba su ma fekkee xaarte wu ma xasab Xunayn la woon wala tabu benn ci ñoom ñaar gars yi commencé di wax ci benn di jëw benn saxaaba yonente bi dégg leen sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne fat waxu leen waw waxu leen tooy daal di bàyyee bàyyi bañ dem ba ci mu romb fatu dem àll ci mbedd ci yoon dem àll fat yeebalee fa mu ne ana bi waa ji ne maa ngi ne mu ne ana bi def mu ne maa ngi ne mu ne kaa leen dëgg ngeen añee lii kaa leen lekk lii saxaaba yi dafa rax yarhamuka allahu ya rasul ah waa yéen si yàlla bi lii moom ñeen ay lekk yéen bi ni gis na la ngeen doon wax léegi lekk lii dëgg ko di lekk moo gënal yàlla li ngeen doon def sànq sama dégg ko faale mu ne xool jiw ni mu ko rawee fekk sa mbokk mu baax nga dem sulli ko jël paaka ak ca morso dugal ko ca përne ba lakk ko moom lekk lekk lekk sa kooju mbokkum jël moo gënal yàlla jël ay yuhibbu ahadukum an yakula lahma axiihi mayyitan xoolal tey li ñuy foye moo tax Abdou Diouf war naa def boppam tey de waaye moom man naa lu ma ko bu ñëwoon nga wax ko ko kii de d' accord bu ñëwoon nga ko waaye noonu mooy jëw ñun dañoo xamul dañoo xamul buy jëw zik abu war a nekk zikruka axaaka bima yakra waxal sa mbokkum jël lu ko néexul loolu mooy jëw su dee la ngay wax na nga te moom loolaay jëw bu dee nekku te da ngaa jëw da ngaa fet waaye nag ànd ak am na palaat yoo xam ne yi dafa duróog jëw te du jëw moom la borom xam-xam alxadxu laysa bi xiibatin fii sittatin maa ngi fekkee ci dar bi bom ne resiam sala xëy ñu borom leeral ah am na juróom benn mbir yoo xam ni du jëw koo xamante ne dafa def lu safaan dafa bon def lu bon yedd ko ci dem di ko kalaame kooku kalaame kooku di dugg ci buntu jëw koo xam ne dafa def lu bon ñu bëgg ah wax ko benn bu ko nasiha bu ko mënul yow mënoo ko nga jaare ko foofa loolu du jëw su fekkee da nga am lu ngeen séen yaa waa ji te loolu kat boo ko waxee yoon feneen jëw lay doon waaye raw nga dem ci borom xam-xam laaj ko pour mu leeral la loolu du doon jëw ah ak ba mu jaayeen cëpp xam fekk waa joo xamante dafa saay saay pour pour ñu denooti ko ba nit ñi xam ne jiw day naxe wala day nangam ba man juróom-benn yooyu borom xam-xam yi di ko lim di jëw yooyu néew a néew la waaye lu am solo la nit ki xam kon mbokk yi noonu la yéen doon yore Aïcha radiyallahu anha kon mi ngi noonu bokk na ci ba léegi tamit pour wan la góor léegi dina bëgg soxnaam te lu neex soxna si rek neex na ko fekk déedéet Aïcha radiyallahu anha yéen tamit dafa ñëw benn bis fekk Aïcha dem Màkka ndeysaan xam nga jigéen ñi léeg-léeg bu ñu bëggee kontaan loo seen borom kër yi rek leer nañ ko def Aïcha dem Màkka jënd benn tuuti benn rideau rido boo xamee dañ kaa deteene deteene ay fataki ay mbaamaki ay nit aki goloo ki ñu dem xamul affaire bi rafet loo ay seen xaaral ma jënd ko daal di koy teg ci néeg bi rido ko néeg bi xoolal góor ni jigéen dañe école pour fégal ko yow nga naa ah non kii su ma ko kii dama koy rusloo xoolal yent bi ñu defoon sallallahu alayhi wa sallam yent bi daa yegg si ba ci buntu kër gi rek mu lànk bañ a dugg mu lànk bañ a dugg bi mu lànkee bañ a dugg Aïcha daal di koy gis gis kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis mu daal di soppeeku mu ne ko wax nanga beneen laaj mu ne ko sa yii ci sa biir néeg bi laa bëgg nga jëlee bi yëpp Aïcha daal di koy leeral ni ko moo ne lii dama ko defar ngir taaral néeg beeg nangam nangam yonent yàlla gis nga gis ne yi ngay seen seeni morom ña nga leen di bugal te sawara fa gën a métti xaj bi ñu ci Buxaari bi allahu akbar yàlla nee na malaaka yonent bi sallam ni ko malaaka yërmande duñ dugg ci kër goo xam ne wala néeg boo xam ne léegi ma nga fa la hawla wala quwwata illa billah am na ay kër yoo xam ne kon su aar bi ngay laaj mooy man ak la fa malaaka bi yërmande gëj a dugg defe naa noonu la war a doon am na kër yoo xam ne ak biir néeg yoo xam ne billahi laadim da ngay laaj ban at ci at yi subhanallahi alazim kañ la ni kañ bañ ban bis ci semaine bi baaba la fi malaaka yërmande du gëj a dugg rek ëpp naa wax waxuma laal man at la fi malaaka yërmande gëj a dugg parce que loo gis kër yi dafa naqaree nekk jafe-jafe yu dul jeex loo jóge tànk ca la ca te man sa léegi yàlla may na ay moyen am nga àddina waaye am nga àddina lu tax mënoon saxaada kër gi mën ta lu tax mën ta neex est ce que nit ñi ñu ngi xalaat est ce que question yooyu ñu ngi koy posé seen bopp lu tax sama kër gi yëpp am naa kantin ca marché ba am naa alal maa ngi jaay lii maa ngi jaay lii am naa nangam am naa nangam am naa compte man pourquoi kër gi melul ni àjjana parce que dafa am njàngale yoon ci boobaay sallallahu alayhi wasallam istibaa gi fees jël ak ay photo ak ay defee léegi sax bal sax rido yi xew nag moom xomay kanaa lañ di daje xomay borom baat yi gudd yooyu fees sell léegi ñu dégg sama doom day ci guddi sama doom di day liir àlla li koy jox ci jaam ngeen ni malaaka yi ma ne ay suñu dugg kay wax dëgg yàlla soo ànd xaj la man baax na gis nga dafay nan ñi bu mu gis yëpp ak ay rido yu am ay dene tafaat ay photo teg ci wut ay fe yoo xam ni kenn xamul ay goro la muy nuré wala ñëw meublé ko dégg ba feer bi yàlla jibril benn bis daa ñëw taxaw si buntu kër yéen saa sallam nangu la dugg yéen bi laaj ko mu ne ko xaj fekk na xosee noon atal xale yi ndaw yi dañoo korom benn xaj ca àll ba indi ko mu ne ko xaj bi ci kër gi moom a tere dugg la hawla wala quwwata léegi nag moom faaw kër gi am xaj kër gi doog a neex gis nga yii yëpp su leen jàngale yéen sa salam li muy indi mooy dund bu xat noonu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ca la ko waxoon mu ni ko inna ashaaba hadihi suwar yawma alqiyamati yu'azzabun fa yuqaalu lahum ahyu ma xalaqtum gis nga ñuy defar lii yàlla mi ngi leen di mbugal da leen di mbugal yawma alqiyama wax leen ni leen li ngeen doon defee ne di nur nurul yàlla maanaam di nuróo ne yàlla parce que islam daga na la defee waaye defee lu am ruux lañ koy def lu am ruux lépp luy dund rab la wala nit dañoo ci bokk yam dañ koy tere mu ne inna al bayta alladi fii suwar xoolal kër gi am ay photo ak ay dessin ak ay website mu ne laa tadxuluhu al malaika malaaka yéen ma ne dafa dugg allahu akbar nga am kër toog cinq ans malaaka bi yéen ma ne dugg nan la ko dund di jage nan lay neexee kooku yéen ma ne yàlla fii ci àddina ji kooku yàlla ne ci alaxira lii doomu aadama war nañ ci bàyyi xel defalaat kër yi ci tamaatir yi gëj na fii yéen si yàlla mas naa yónni Ali ibn Abi Talib ne ko ñaari mbir laa lay tax moo tax ma dina yónni bi ci jëkk mooy bàmmeel boo fekk mu sóobu ca kaw rek maa fa la subhanallah wax waxuma la bàmmeel bu tabax de kon waxuma ay tabax tabax la tabax tabax da beneen affaire la bu gën a garaawal waaye jal bi ñuy jal nga xam ne dagan na sax bu ngandee yenn ngand yi bu ëppee sebre yii jal bi su ëppee nii mu ne ko maa fa rek photo wala dessin boo romb ci miir utal mor sa tooyal ko pomp pompal ba mu def gis nga lii moo nekkoon jàngale sa tam lii la ñuy setalee kër yi ci sant yu mel noonu riatuha ala alxabibi sallallahu alayhi wa sallam fii ne doo xam ne Aïcha fii ne woon na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buntu bii nag la ma ci waxoon si dund Xadija defe naa ko fekkee woon booba leeraloon naa man xalam yaar ci wàll ak xiir waaye maa ngi baamuwaat ni tey ah tey waxuma Aïcha ah day fiire soxna yonente bi waxuma loolu dama ni Aïcha daa fiire yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy lan lu jaaxle woon jigéen borom la war a fiire ahan kay waaye dina fiire borom kër lu tax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom kër gu mel ni moom ci mën a yàq ci am yërmande ci mën a jubbanti ci defaree ci defaru laa tax que jigéen ji kon xaw nga fiire ko moo tax mu ne xiiratuha ala alxabibi sallallahu alayhi wa sallam Aïcha ñi ko yonent bi bëggee woon noonu la ko bëggee xanaa xamul teraanga la ah lii mayum teraanga la koo ko jiiñee koo ko jalax mu jalaxaat la gis nga jigéen ñi mu góor kenn ku ci def effort bëgg moroomam di ko toppatoo yëg ko di daw lu ko neex di daw ci li ko neex dama ni bu yàggee loolu sa bopp nga koy liggéey li lay fan dox jigéen ñi gis nga jigéen ñi ñi ci ëpp man dama naan muusuma déedéet muusul boobu bu neex a nekkal la li nga def ci ay xeeti njëkk ak ay teranga carte yu tooy carte yu tànn yërëm ko ba moom mu yëg ni yërëm nga ko xanaa leer nga jëflante góor goo xamante ne ama ëbal la xel ak dof la loolu moom bu amee moom moom da ngay def ay jaraanga ba sonn lay tàmm di jariñ waaye boo jëflante ko boo jëflante ku gore ku am ngor wallahi li benn waxkat doon wax naan góor geeg gone gi ñoo bokk yam ndax neexal rek bu doon jooy mu nopp jëf xeet jaraanga yi da ngay def ba da ngay aaki moo xolam da nga koy moom loolu la Aïcha liggéeyoon nag radiallahu anha Aïcha bokkoon na ci ñi mu doon surveiller yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu nag la ma waxoon laay waxaat jigéen ñi dëgg la dañ leen bàyyi ñu fiir waaye nag lan mooy fiir ga boo bëggee jigéen ci lu ma ko nangul mu fiir moom parce que yàlla dafa mel ni daal yàllaa bind lu xaw nga ni man lu xam koo du fi am loolu lay nuru da ngaa bëgg di li yàlla def waaye fiir boobu am lan mooy fiir yow waajal ndox naan fiir moom néeg la boo xam ne jigéen ju nee cay fanaan jigéen ji gën a ëppal nag mooy ñu dëgg ci mooy koo xam ne moom ci yaram nopp lay biir kooku dafay nopp moo tax ci salaf umu xaaris mag ma doon dénk doom ji ba muy sëy bokk ne salaf ko nopp mooy kii yàq wala kii la parce que nekkul fiir de ndax kii dala yàqal de fiir gam ca na moon mooy fiir gu ëpp ji di nopp waaye xoolal aayisa li doon defee sallallahu alayhi wa sallam ci kéemaan benn bis benn guddi su fekkee soxna yonente bi lañ mën a nekkil lii sallallahu alayhi wa sallam pourquoi doo accepté jigéen ñi ñu mel noonu pourquoi nga bëgg mu nekk koo xamante ni day da nga bëgg mu gën a jàmbaare ba gën a jàmbaare Aïcha loolu mënul nekk benn guddi Aïcha nee na yonente bi daal génn ci man li mu génnee ci nit ma ma mer ma mer yéen daa jékki-jékki gën a xamu fu mu dem ma mer lu tax amaan na comme yonente bi daa war a yor xajuraat mu yaakaar yonent bi daa génn ci néegi dem beneen néegu soxnaam gis nga jigéen ñi ni ñuy xalaat xoolal Aïcha allahu akbar kan mooy Aïcha ci ragal yàlla dana ñëw waaye xoolal kooku moo def lay day nee na bi loolu amee yonent bi ñëw gis Aïcha kanam ji përpër yi mel ni sa waay forne buy boy yonent bi ne ko Aïcha ah ah yii Aïcha Aïcha bi Aïcha la maa fii ah xool lu mu ko toll wa maa li laa yagaaru misli ala misli pourquoi ku mel ni man su xamee ku mel ni yow du ko fiire gis nga baat bi baat bu gàtt la boo xam ne ay ay ay mormosoo ci la bës wa ma misli laa yaxaaru ala misli lan moo tax ku mel ni man du fiire ku mel ni yow Aïcha yéen bi da ko topp boo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba ay Aïcha yëpp yonent bi topp ko Aïcha ba yonent bi yëpp ñoom ñaar ñuy dund ci ak dal ci ak neex boo xam ni Aïcha moom waxi na gii naan dem kër bàyyi moom boobu kenn waxi na yonent bi moom ah Aïcha moom la la yonent bi wàcc keneen jël la moom boo ko waxee moom moom mooy indi nga musiba yi àddina ak àllaaxira gis nga kon faw mu di ko fiyee fiir boobu mooy la muy bëgg ku tax kese loolu rek lay teg teg wut leen waaye xoolal ko bu doon ñu ne da ngay daal di wax wax wax ju sabaan yonent yàlla bi ne ko waaw awa qad jaaki seytaanu bi ah Aïcha seytaane bi daa yettee baa da daa dikk la gis nga léegi yonent bi ci technique am ci ni mën a jàngalee te wuuteeg ñun sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla moo koy wax yu fexe na ba soppi débat mer ak débat fiir soppi ko débat xam-xam awa qad jaaki seytaanu ah te seytaane bi da daa dikk la Aïcha ne waaw ah nag awoon naa ay seytaan kon damaa am seytaan def yàlla bi ne ko naam wa maa kulli insaan nit kuy dem ku ne yaa ngeen am seytaan bu ànd ak yow léegi Aïcha dara fiiroon bay jëf jëfi di mer mer ni wàcc na lu ko wàcc parce que ñoom xam-xam moo leen gën a lu ma te tey bind ñëw na bindu weer bind weer mooy Aïcha xamul dugg rek daa ànd ak ab seytaan yéen yàlla bi ne ko naam mu ni ko naa de yaa rasulallah yow tamit am nga ko mu ni ko naam man sax am naa ci seytaane yi walakin rabbi aanani alayhi xatta aslam yàlla moo ma dimbale ci saa bopp fii nag xadis bi mu ci Buxaari lépp ci nit ñi dañuy wax aslama ba mu tuub dugg ci lislaam waaye am na borom xam-xam yu bare bare bare dañuy wax ne du aslama aslamu la aslamu aslamu du aslama xam nga aslama mooy sama seytaane ci suuf la dugg ci lislaam kon day nekk sa seytaane leneen la waaye dañu xatta aslamu ba mu mucc ci moom salima yaslamu ah aslama yàlla moo ma dimbali ba mucc sama seytaane si mas na maa déglu Cheikh na Mouhamad Ahmad loo mu ni lépp ci borom xam-xam ñu ni boobu mooy bi gën a wér xatta aslamu ba may mucc loolu la xam ne ci Buxaari moom dama ne la isa aslamu ba mu tuub am nañu wax loolu lu mu yàq bi daal suba sama bu tuubee rek tudd tuusee daal ay sa daal di kontaan débat fii bi soppeekoo débat xam-xam léegi lu tax ndax ñoom xam-xam boo leen gën a luñ ma am lii la yor doon jàngale sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li lay wan ni mu doon fiiree yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da koo mayoon lu ëpp ñeent ci ay soxna genn boobu beneen bi ñu des mooy may ko tamit jigéen sañ naa ñëw ni ko may naa la sama bopp amul jal amul antabaay amul antabaajal amul kay tey ci amul dara ndaw si day taxaw rek ñu la yonente bi may naa la sama bopp benn bi ne ko waaw jeex nga nekk jamono allahu akbar xam nga loolu ñëw na ci suuratul ahzab wa mraatan mumina in wahabat nafsaha linnabi xaalisatan laka min duni muminin ndaw si ñëw ñu ne may naa la sama bopp allahu akbar waaye Aïcha am na borom xam ñu wax ne laay ji loolu taxawaay tur ji man sa tax min wa tumineek wa man ibtaxayta man asalta fala junaha alayk yàlla ci boppam lépp ci mu fàttali loolu lañ wax mu ne ñu ne aaya ji mi ngi dem ci ñooñu nga xam ñoo may seen bopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko may naa la te fii war xam na ci mu fàttali da cee séddale ko ñaari pàcc ñenn ñi dañ ne maanaam soxna yonente bi yëpp mu jëntal gi yàlla da koo may xitma ni mu nekkee waajib ci suuf nekkul waajib ci moom mooy lan damaa yor ñaari soxna faaw ma ayatee ñaari fan su subaa ma ayatee ñaari fan loolu ci man mii di wax noonu laa koy defee su ma ko déglu damay def bàkkaar ñaari fan nag jublu ma ci ba mu nekk ñaar bu la neexee benn bu la neexee juróom bu la neexee fukk yoon kenn dem ci lu ngeen ci déggoo rek waaye su ma ko defee wut noonu ma tane kii ma jox ko nombre bi kii ma jox ko nombre bee damay bàkkaar ëllëg mu juróom ma buggal waaye bu yooyu yonent bi leen ñu ma ñu ne ay soxnaam yëpp yàlla dagaral na ko bu ko neexee lu ko neex lay séddalee bu ko neexee ayatee ba mu neex ko mu ayee fële lu tax loolu xitma ci boppam laysa waajiban alayhi nekkul lu waajib moom maanaam moom kay moo soobarewu di ko def alallaama saadi daf naa te ci day tëral karim rahmaan mu ni am nañu wax ne loolu moom noo tax aaya tax a jóg mooy nekkul lu war ci yéen sax la moom morom coobarewu di def noonu moo tax dana wax ne ah hada xasni fi ma am ni ah ma ne li ma moom de di ko séddale mi ngi nii te lu am solo la bokk na ci jigéen ñi bi rajaxe seen biir kër yi ak kii maandu wala kii daa naan mooy dañoo xàmmeewul dañoo xàmmeewul li yàlla ni nii la ak li nit ñi ni nii la dafa am siit boo xam ne nit ki moo ko moom joxe ñaari fan joxe nangam joxe ñetti fan yooyu yaa ko moom yow te xol bi ka muy gën a bëgg ka muy gën a kontaan ci moom ka muy gën a nangam kooku mbirum yàlla mu mucc dara ada xas ni li ma am léegi ah yàlla da koo séddale li ma moom nii laa ko séddale kon nag li ma moomul mooy xol bi moo ko jàppee moo tax lan ko xaafal na katir mu ni ñaari laay yi ci alquran wala laay jële naan kenn mënta maandu ak xarit bi tëkk ku maanduwul mu ne nii lañ leen di boole benn bi ñuy jëf ci jëf-jëf yi ñu jëf beneen bi ci des nekk jëf-jëfu xol jëf-jëfu xol moom lay moomoo ko loolu la yéen doon jàngal sallallahu alayhi wa sallam kon laay ji bi mu wàccee suñu borom ne ko tur ji man sa sax bi defoon na yaay tànn ku la neex rek nga aaya ci moom ah wajub ni ilayka maanaam yaay yeexe tur ci yaay yeexe ku la neex ci ñoom nga ja aya ji moom wajub ni ilayka man tasa bu la neexee aya ja ka nga soog ka nga tànnal wa man ibtaxayta min man azalta fala junaha alay ka nga tànn aya ja moom ak nga bàyyi bañ koo aya yooyu yëpp leer na bàkkaar la rek ñenn ñi neneen soxnaam yëpp la te loolu am nañu ci istidlal di wax ne kon ay gi nekkut lu war ci moom comme ni mu waree ci ci yombal yi ko yàlla defal la ko am na ñu ne déedéet jigéen ñi ko yàlla ñi nga xam dañuy wax may naa la sama bopp ñoom la bu la neexee nga ay ca bu la neexee nga bañ a ay laay ji ne bi mu wàccee te loolu xam ngeen ni balaa may jàll yéen si am na ñu ko defoon noonu sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen di ngeen dégg sëb sabam ndaw si di ko daal di sikk ni ko yéen sa salam may naa la sama bopp yéen si sikki xool ko daal di sëgg ndeysaan xam nga ni dund la maa la bëgg nga ni ko bëgg man waaye nag ah boo ko fasee sa jël soxal nag nooy def yéen ci bi rus ndaw si ne may naa la sama bopp yaa rasulallah yéen benn taxaw mu ne waaw yonent bi bu dee kii liñ lay wax moom amoo ci te teeg ma kaaxaar ba ma bopp yonent bi ni ko indi li nga am may na saxaaba bi lim am yonente bi may ko sallallahu alayhi wa sallam kon am na ay jigéen yu ñu may def bopp yonente bi Aïcha allahu akbar ku ku dëgër la ma xam naa dama ko baax la woon ndax sunu yaay ah am nga lu mu doon wax su boobu ma jigéen joo xam ne day ñëw di maye ba ko ca bàyyam du ko joxe ca bàyyam du laaj ca loolu rek ngeen découragé la découragé la dina ñëw di yokk su boobu ma jigéen joo xam ne day ñëw naan lay maye ba ko ca bàyyam du ko laajaloon ca gis nga moo tax yéen yàlla bi naan ko ah yow de in kaana daalik ah mu ni ko yow de jaarasoo wa yan yàlla fasal di ko wax yow de gis naa ni saa boo bëggee mel ni mbir jëm ci rek day mel ni sa borom yàlla soo dara dara cay jàppale loolu la ko yontu la sallallahu alayhi wa sallam léegi loolu amee Aïcha daal ni yéen di aaya ji wàcc Aïcha mu ne yontu bi ah man nag moom loolu moom laa utiru alayka ahadan man kat du ma bàyyi ngay dem feneen ci sama ay déedéet man kay li ma moom du ma ko may kenn ndax man yemalewu ma nag keneen may may ay keneen te xam nga sax ñun dañu mayante ay ay xam nga xam ci baax lay may ayam soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may ko Aïcha kon yii ay jàngale la yoo xamante ni lu am solo la jigéen ñi sëy surtout ñi nga xamante ne dañuy wujje ci biir kër nag. benn nag beneen a ngi ni mooy gis nga kër ay jigéen ñi dafa di wujje rëf rëf rëf rëf rëf rëf rëf rëf jéeg rajax rajax ji moom kenn du ko xaaral gis nga góor bu jàpp ni di nga yor ay soxna nekk sa biir kër muy neex amul xuloo amul gaarawaale amul ci xotonte amul dara ah kon day li ma la bëgg a tontu mooy bëgg sa kër gu kër gu gëm kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama ni dafa loo xam nature doomu aadama la gis nga taraw moom wat mu sax wi moom leew yi mu saxaar mar moom naa xiif lekk nga mel nelaw yàlla dafa am yoo xam noonu la yàlla bindee kaw bi jigéen ci boppam moo mënta nekk moromam jigéenam ci biir kër gi ay ragal ragal du baax kenn ku ci nekk nag sa ragal yàlla moo la tax a mucc ak góor bu am fulla nag am faayda bañ a yëgal yaramam bu xew loolu loolu loolu bokk na ci ci li gën a dimbali góor bu ma fekkee ne da ngaa jàppale su ñëwee ku ci xarañ rek nga yaakaar ne àddina bi su ko dee dugg léegi léegi da ngay ne ci kër gi boo bëggee yor kër bokk na ci da ngay ne ci kër gi mel ni ko fi nekkut léeg-léeg dañ ciy gëri léeg-léeg nga jéem la lépp léeg-léeg nga tëx tëxlu gis nga mooy def am na yoo xamante ni loo dégg rek wax ci bu yàggee sa kër tase wala ñu doon ni ci leen ndongo la waxoon sëriñ bi sëriñ bi ni dem leen toog ngeen bay waaye du ma ñëw tey rek du ma ñëw ndog ngay dem di ko di ko di ko di ko di ko nekk sëriñ bi da leen bëggoon a benn sëriñ bi jékki-jékki rek daal di jëmee yéen fa ñuy fayee benn ndongo bi gis it sëriñ nañu ñëw benn ndongo bi kon xanaa suñ ko defee moo xam ne du ñëw dañ fekk bi ci ginnaaw ngooñ ci ginnaaw gaal mu daal di koy dégg rek xam nga loolu lan lay fël pour ne waat naa sëñ bi daal di yoon nekk naa noonu la de am na yoo xam ba ngay jëf jëf loolu rek la ci mën a muccal mel ni dégg ko waaye boo koy jéem a dégg dégg rek wax ko moom sa sa yaa koy feeñ gis nga bokk na ci technique yooyu góor da koy yore gis nga da ngay ne ci kër gi la rek am ay mbir yu xew xàmmeekul fële ca ginnaaw mel ni ku yëgul lu xew sooy def luy xew nga bëgg ko yëg dama doon nii la yëgul wax ne sallallahu alayhi wa sallam beneen bi ci des nag mooy mbirum ngóore dëgg na saa bu ñëwee mbirum ngóore dëgg saa bu ñëwee wax saa bu ci teg rek la nga fexe ba tey wax moom moom joxe rek lay àndal wax ci jub lay doon wax joxoon doom benn teegi teegi wax bu ñëwee gee lay doon loolu laay wax gars yi bëgg nañ lool ay ay soxna gars yi soo dégg mu ngi naan ñaareel ñetteel ñeenteel waaye yor ay ay soxna yombu dee lii nag waxuma ko pour déclarer loo kenn déedéet bal kay dañuy soññ nit ñi fekk benn ci boppam ci boppam moo war a jeex ci askan Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam ndax benn nekkul woon su doon anbiya nekkul woon ci mit sunna salaf saalih déedéet yor ay soxna nag yu bari ba matal kay loolu muy sunna ci kaw nit ki su ko mënee waaye nag ah mbir mi laaj nag dal de jigéen ñi dañuy rajax dañuy rajax rek léegi nag jur bi dal ànd ak ak ragal yàlla bokk na ci li muy dimbandikoo mooy fexeel ba maanu te yàlla rek tax ba ñoom boo ci waat boo ci yàlla ko dana waat ni maanu la il faut bokk ci am problème bu ñëw réglé ko moom deux minutes nga réglé ko jeex waaye li ñu ko dee ba ñuy déngi déngi ci sax maanu ba ak maanu boobu wala bopp maanaam say ay farfar lool di nangam su boobaa dara xew loolu na ci la yontu monsieur sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci leçon yi nga xam ne yontu yàlla dafa doon jàngale mooy jëf yi nga xam ni soxna da koy def ngir tooñ ak fu mu la mën di féete nga yàlla te lii man dundu Aïcha da koo fees la jàll radiyallahu anha benn bi al imam Buxaari mu ngi indi jële ci ana mu ne kenn ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa yónnee ab ab lekk bu ñu def ci palaat kon jigéen di fiir di fiir di fiir ba mënoo muñ sa borom kër ayat yi keneen yàqal li ñu ci def kay nga aye te nga aye ma yàqal sa borom kër loolu ci nekk dara ñëw ci waaye xoolal ba biir kër yonente ba soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci def yàqal yonente sallallahu alayhi wa sallam fekk ayat Aïcha Aïcha ñoom gis yàq bi rek xam naa affaire yi moom xaw boobu kii rek salaalaaya ko rek mu def li booy tuddee football mu football bool bi jël mu rajax affaire bi tam ci xoolal Aïcha ñu koy def am dëgg sax xalaat saxaaba yaa ngi toog ñoom ñëpp day sax dem si xalaat ci dal ci mën a yare wax sam lay koj bu nee la fa nuut di nga ne ñeew yent bi ñëw woo na ñëw wutoo ci biir bi waaye dajale bool bi daal di ah seen seen seen lay ne seen yaay leen ngeen tey bu yëpp ngeen jàpp ci leen yàlla déddee forat nekk bi def di lekk leen gis nga bi loolu amee am na ci riwaaya ay sa lay daan gis ni yent bi daal li mu doon affaire daal affaire yi wàññeeku na gis nga nag loolu la na nga ko taxal rythme boo xam ni fu mu nekk ko mën a am waaye bis boo këjee rek xaj bi la ci kanam Aïcha di neexal yonent bi di ko neexal sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi ne ko yëfi jàmbur nga teg fay te nag Aïcha ci ko ab bool yonent bi jox saxaaba yi ñu lekk ba nag mu yëkkati bool ba jox mi daal ni ko demal jox ko kookee nga xam ne boolam lañ tolloon al imaamu Nasaayi ñu ngi ne ci riwaaya bu ni mel mu wane ne aw xeer la ay di jël aw xeer la jël nag ni ko tënk ci digg bool bi bool bi ne rajax xaj ne la yonent bi dajale ko ba ne kulu xaarasumukum kulu xaarasumukum lekk leen seen yaay bi ba mu amee mu daal di jël boolam Aïcha ci boppam ba mu jekk dem jox ko nga xamante ni moom da ko yónnee woon am nañu ni maanaam boolam ummu salaama la maanaam ummu salaama te moom la boolam ko ci toyoo kon yi ay jàngale la yoo xam ne ak xëstal ba leen fi la jëlee woon bi nga xamante ni Aïcha daa jël ñeex ma taxal ko ci kanamu soxna Sawda yonent bi jël loxob Sawda ni ko képp ci ñeex mi daal di ko koy sëlamu moom it allahu akbar xoolal sallallahu alayhi wa sallam ni ma nee woote ba pare jaaxal bële di la beeral xoolal loo xam ne tey waroon naa mën a gàttal kër gi une semaine mu nekk coow lu dul jeex ndax man may morom ba may taxal yeneen bi daal di jël loxo jaamur daal di koy kii fële daal di jaaxal bële di dee ay reexam mbir daal di xaw a dugg comme seen affaire bi jeex mu rek ne ko mu sañ seen Omar doon jàll bi ni ko yaa xamma eh Omar Aïcha ne dama xamee ne Omar a ngi ñëw yéen tamit ci gën a ne tax seen kanam balaa Omar a ñëw mu ne jëlaat tàmbali dina ko xamal mu ne seetam yéen tamit sax moo ko jox xëy bu ngeen ko ba bëggul sax bu ngeen affaire yi ñuy def mu ne moo tax ma rus Omar allahu akbar moo tax Aïcha doon wax ni Omar dama kaa rus bi muy dund rus ko mu faatoo Aïcha ne nag moom bu yéen bi faatoo sallallahu alayhi wa sallam bu daan ziyaare armel bi ana armel bi ana armel yoon sa sallam ñu ci biir ñëpp Aïcha kon buy ziyaare ñoom muy def day làq yi mu ne ba fa yonent bi nekkee dama ne ah sama borom toll su ma mën ma bëree xibaar sax sax ci biir néeg bi laa nekk ba Omar ba bëgg a ñëw ah même bu soobee xibaar sama waaye nekk mu ne waaye bi suul tee Omar moom gis nga ba léegi maa ngi lay loolu dafay gën a yàq rek mu ne bala maa ziar damay mel ni jigéen juy génn na mel lu tax mu ne xëy ba ci ma joxoon Omar bi ñuy dund dafa des ci ma loolu baaxoon allahu akbar lii day yàlla subhanahu wa taala kon lii ala kulli xaal Aïcha radiyallahu anha ku fiir wax la bokk na ci misaal yi ba gën a jël ak fiir gi mu doon fiir damay fiire soxna Xadija te fekk gisantuwul sax moo tax bokk na ci li ma doon dund sànq laaya yi nga mooy turdi man tashaa minhunna wa tubu ilayka man tashaa bokk na ci bi mu wàccee ci la yi yan sa sëra sëral wax naa ko maa aara rabbuk illa yusaariu fi fawaar dafa mel ni yow daal sa borom subhaanahu wa taala li nga bëgg daal dafa mel ni daa nekk toujours te loolu sax xam ngeen ay saxaab danañ ko Aïcha Usayd ibn Hudayr nag maa hiya bi awwali barakatikum yaa aala Abubakar keroog ci aaya ji mu wàccee mu ne ko lii du njaal benn mbàkke gi leen yàlla defal yéen waa kër Abubakar fépp na dund wa Dakar ñëw ëpp waaye muus ba léegi ci wane Aïcha ni mu fiiree woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye kii boobu comme li may wax ba léegi muy bëgg bi Aïcha mu ni am na benn guddi boo xamante ni maa aye woon déglu bu baax déglu bu fiir ci fi mu yeggoon ak gravité bi Aïcha ne guddi bi maa aye woon yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw sumi ay dàllam teg ma tëdd mu tëdd li ba tàngoo benn naaj ci seen biir néeg mu ne yéen bi toog tuuti de si ngay tëral li ñu doon ñaawee yéen si gënu ceeb mu naan sallallahu alayhi wa sallam ci pàcc daal di génn sëñ mu si naan kenn ndeke yéen si dafa defee Aïcha melaw na fekk Aïcha melaw na ci allahu akbar Aïcha ci ah jàpp naa ko tey na tey jii nag day jàpp naa xam naa boobu dafa defoon yeneen bi day yollee mu def ci benn xam allahu akbar waaye xool comme ni mu gis xaaral rek yeneen bi doon jëngu naa ni kay jëngu ji ay sa teg maas ba mu set muuru jil baaba ubbi buntu bi ba seen yeneen bi dem mu taxaw ci ginnaaw sallallahu alayhi wa sallam nekkte allahu akbar nekkte jibril boo ñëw bëgg a dugg wax ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam te Aïcha ngi summeeku te jibril bi bu suñu bi fekk Aïcha bi suñu yonent bi nee na jibril taxaw ci daal di may woo naan te déggoo ko ma wuyu ko naan te déggoo ko mu ne ma yàlla nee na nga dem Baqiya te Armenia tamit ci xaaji guddi nga ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala allahu akbar yonent bi génn jëm Armenia Aïcha génn loolu yonent bi dem dem dem dem ba Armenia taxaw ñaanal bi nit ñi ba noppi léegi la war a def ba dara dugg lu ñu fi fu yàlla ñuy nii rek seen lu ñëw ñëw affaire bu ñu ku ñu dem dem rek mais ñu daway ci la ñuy jombalaat ci yoon ay su seen yoon bi ñëw yoon tamit naan na demee ni xam ni am na ci loolu am na comme dox yoon tamit dox ay sa gën koo dox jiitu ko de bi mu ko séenee ba xam ne ne nekk tamit sooy la doon noonu ay sa gën koo daaw bi ñu soxla yoon tamit doon yéen tamit dox ay la gën koo dox mu dugg rek mu jot mu ñëpp xam ngeen ñëpp ñëpp xam ngeen mooy daw boo xam ni fool lool lool lool lool ñëpp ñëpp ñëpp ah yéen tamit ñëpp ñëpp ay da ngeen seen ko muy ñëpp ñëpp ah mooy ñëpp ñëppee nag boo dawee tuuti boo làmbee fii nu muy def def def ay sa daf ñëw sanguwaat ba mu jeex mel ni dara xew yéen bi ñëw bi mu ñëwee sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa Aïcha maa rek Aïcha lu xew Aïcha ne ko dara mu ne ko ah Aïcha noonu la ko ko wooyee sallallahu alayhi wa sallam xasee rabia sa këf ji am na la ko Aïcha wax na la mu ne ko dara mu ne ko la tuxbiranni aw la yuxbiranni latiful xabir di nga wax mu xew mbaa yàlla ma njëkk a asamaan sax ne wax la xew léegi Aïcha doog koy wax nag histoire bi ni demee ni ko dafaa génn ma yaakaar ne ngaa demoon sa yeneen soxna yi ma génnoon loolu la toog gis nga te yeneen bi jël loxo bi ni ko fell ci dënn bi dóor ko rek dóor gaañ ndax yéen daawul dóore waaw mooy ne mooy kaf ak yéen ba ne ko tàpp nii ay waaye Aïcha leen xaw ma kaf la ca jublu xaw ma ah xaw na maa beneen mu ne ba mu ne ma ko tay ah mu ni ca laa def aw jaax nii mu ne xaw na maa gaañ yóbbu ko fekk yàlla bi lépp loolu mooy kat loolu sallallahu alayhi wa sallam ah mu ne ko ma Aïcha ne man laa yettu min naas yaalamuhu Allah léegi nit ñi luñ dëgg rek yàlla xam na ko subhanahu wa taala Aïcha daal di wax loolu radiyallahu anha kon loolu ci la ko yéen yàlla daal di wax ne ko nag damaa demoon baax yàlla ca la ko laajee gis nga xarit bii nga jég ñaan la ko demee armé lii ngay ñaan ca la amee woon mu ne ko lan laay wax ku ma leen ñaanalee mu ne ko da ngay wax assalaamu ala ahli diyaar am riwaaya bu ne assalaamu aleykum ahla diyaar min almuminina walmuslimin wa yarhamu llahu almustaqdimina minna walmustaxirin wa inna insha allahu bikum lahiqun booy ziyaare amee da nga jàmm yàlla yàlla na nekk ci yéen ahla diyaar yéen waa kër gi yéen ñi tëdd fii lu ma tabaay lu am solo ahla diyaar foofu ay kër yéen lan dañuy natt ay kër waaye allahu akbar mbokk yi mbir mi soot na mbir mi soot na waaye amul dara ji mu soofee wala nga xamul ngay dagg kër nu mu gën a yaatoo gën a baax am ko fii am ko fële subhanallah di ko gis boo génnee fii ci àll bi tey rek si ngay xam nit ñaa ngi xëccoo àll bi mel ni sa waay sax ñu gis yàlla suuf si loo ci moom lu bari bari bari bari bari la biir bu gàtt la ay sanawaat sanawaat xillaat sanawaat gàtt lay taal su ma dem am yenn daal yi kër dëkk ko dëkk xëy bala maa bëgg a dee ñu ne titre foncier titre foncier mooy lan lii mooy titre foncier titre foncier du mooy teeree boo xam ne kër boo xam ne moom nga dara wóor a wóor a wóor bu ma noonu la moom boo xam ne moom kenn ci sàkk ay nguur ñëwoon bëgg a jël foofu daf lay demandé dama ne fii mooy titre foncier pour la joxum kayit ñu ne titre foncier la yàgg dama doo ko yàgg léegi su ngeen fii mooy titre foncier wa inna daara al axira la al xayawaan titre foncier yi wóor yi mooy àllaaxira ba nga xam ni tafeet la ñuy def mot lu tollal koo nag koo doxa foofu mooy fu wóor assalaamu aleykum ahla diyaar yéen waa kër gi min al muminin wal muslimin ñi gëm yàlla jullit yëpp yal na yàlla yërëm ñu jiitu ah ci yéen ak ñi mucc ci ñun waaye wa inna insha allahu bikum laaxiqun nun day amul lu ñuy werante ci ni da ngeen noo jiitu rek waaye ñoo ngi ñëw soo delloo ci téere bi ñu doon jàng bu loxul maram doon na jaxla ci waaye antum salakuna wa nahnu bil asar da ngeen noo jiitu rek ñu ngi seen tànk seen tànk la ngaa ñu ngi yéen a yéen ñu doon ñaanal ñi nga xam ne kon mbokk yi lii li ciy jàng rek moom mooy maanaam Aïcha ekkoon na ci xolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne bëri la moo tax ne ma ne ah yàlla bu nit zakka tey yi def muus la wa yàlla amin fépp ma yor xob حينما علمت عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم غاضبة kon xanaa yéen ñu mer na ci li mu ko wax sallallahu alayhi wa sallam xew mooy bi mu làngee bañ ko wax mu xew te yonente bi yàlla xamal na te fekk lan loolu rek moom Aïcha moom moo jur kon mbokkum julit bi mu ni ala bal taalami al uxtu al muslima mumina mu ni sama mbokkum julit bi na xam ni annaha ida wajadat zawjuha ah qad xadiba min amrin bi ayni an tuhawila al kalama an kalama an amrin axar xatta la tuqira sadraha allahu akbar ni lii mbokkum jullit bu jigéen war na cee jàng saa bu ne bu yëg ni xolu ci bi borom këram uur na gudd na ah fexeel gaaw wërtal ko wàcceel ko ndax kooku baaxul loolu baaxul da yàqal jigéen mer mu rëkkal baaxul yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ki mer la ko rëkkal te fekk moom moo am dëkk moo am dëkk ah wala nga génn sa kër borom kër te amoo ci ndigal sa borom kër mere la yàlla da ngay rëbb di la rëbb di la rëbb di la rëbb ba keroog sa borom kër naan la baal parce que yéen yàlla da ne bokk na ci melokaani jigéen yi àjjana yi ku yëg ni yëngal la xol borom këram day jël loxoom teg ko ci loxol borom këram ah lu muy def la azuqu xumdan xatta tarda gedd naa nelaw dootuma nelaw waaye dugg dangaa kontaan loolu la melokaani jigéen yi àjjana ya mel kon yii ay njàngale la yoo xamante ni mu lëm sek وحتى تستمر الحياة ويسودها الحب والوئام والمودة والرحمة suñu koo xam ni day continuer la koy accueillir mooy jafee bëggante yërëmante jàppalante allahu akbar lii moo taxoon Aïcha bu ñàkkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu ñàkk na lu rëy waaye kër gi mu mën ci amoon ci ay jafe-jafe dugg dal la bu neex lu tax mooy kenn ku ci nekk daa xam la war di sa góorgóorlu rawatina nag ku jigéen ñi nga xamante ni moo toog rek nag ñuy jàng ay sabab yi dundam ak ñu dund dëgg yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam kon dafa mel ni waxtu dab na mu ngi ñaan suñu borom boole defal tawfiq bind yi ñëw incha allah danañ continuer yenn ci ay jàngaleem rawatina ci ni mu ragalee woon yàlla nag ak yéen doon jaamoo suñu borom incha allah balay dund ay sa jeex danañ ubbi benn bunt boo xam ne ñu ngi dund ci tënku ci xaadisa bi xewoon ci dundam nga siiw lool dañ xam ko mooy xaadisa bi jënd rawatina nag bu ñu koy jël nag génne waale yan jàngale ci wàllu yar nag la ñu julli ci àddina mën a tiire hada wallahu taala alam sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi